mais maa ngi mais ana sonn ndax. da <laughs> nga a macha allah. keroog Sala Dior Fatou Sila Dior Thiam Daar. soxna maa ngi mu Cheikh Mamadou Moutala Mbacke góor yàlla. lay Mbacke sama mag yee na koog donga yi rawatina ñun sëriñ si lu ko ko ci lim moom muy télé bi ak rajo bi nañ ko bëggee la koy defee kon yàlla na sëriñ bi jàppale nee na li ci des nag moo ngi nii rek nii nga def rek bëgg dara def dara wala nga wuti te fii moom mag mii fi tëdd yàggu fi de it jot. te li mu dund it yàggut. fanweeri at ak waaye. ku fi ku fi ñëw. Serigne Fallou boo fi fekkul Serigne. boo fi boo fi yàggee mu fekk la. kon nag na la yàlla jëf. macha allah amiin. jërëjëf Mbacke. te mosal la te mu Cheikh mu taxa. Rıza. Rıza. Nerede? Président Thilone. Nital ma nuyu président. président Bougane Gueye Dany Seri Momi. waaye nag ndeysaan càmmiñul Yacine Kébé. président Bougane Gueye càmmiñul Yacine Kébé. sëñ bi am teewee ko fii ci kër Soxna Bally Mountakha. Wow. ba ma xamee ne sëñ Tuubaa ngi ci yow. waaw la samam xel dalal ci yow. président yaa ngi ko président doo gan ci yoon président na nga daan def ak sëñ Mbàkke président ni nga def yoon Tuubaa ki dem ci xasaayid yi barki dem bisu xasaayid bu la neexoon yam ca fu nii def dara ci yoon yi ki dem ca Touba Gueye ña ngi koy gis ñun ñu ngi dem fépp loo def ñu ngi koy fekk président Bougane Gueye yàlla na yàlla defal ndam talla fa la cet yaakaari ëllëg réew mi man Bougane yaa toll noonu yaa toll noonu ci réew mi li la sëriñ wax dégg na. sëñ Abo ñaanal la leen ko de. Bàjjen man may bàjjen jaara